képp bejo, bejo dara jëfati bejo. Béthio asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki waa àdduna maa ngi ay di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides di ko nuyu bu baax te sant di nuyu it Serigne Cheikh Saliou Mbacke moom mii suñu bunt fa moom ko ñaanoom yàgg fi lool te wér euh, kaddu yi day day kàddu ndongo kaddu taalibe goo xam ni euh, amul lu dul Serigne Touba te it bëggul lu dul Serigne Touba te lu dul Serigne Touba it yitteelu ko kaddu yi nga xam ne nag moom laa yëkkati muy kàddu tuub ci sama diggante. ak xalif general des mourid muy seigne muntaha bashirou mbake di tubal di ci luma xam ak lu xamul di toub ci lepp lo xamanteni euh doxna fi te muy lo xamni kat ak mata di doomu adama la mang ko ci toubal bu baax di ko waxne man day ci ndigal rek la aju mom day limako wax rek day serigne ci ñun ndax mo fi togal serigne touba day woy jurit ci ñun lépp loo xam ne doxin la wala waxin wu dëppoowul ak li muy digle maa la muy tere moom day ñoo ngi ciy tuubal te di ki tuubal mbooleem umma islamique bi waaye di ci tuubal it mbooleem yoonu murit moom daal maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi jéggulu te di ko seereel Sëriñ Tuubaa ne tuub naa lépp loo xam ne lu ko naqaral ndax yitte bi day lu def lenn lu ko naqari maa ngi wax ak nag sama mbokkum taalibe yi nga xam ne maay seenu jëwrin di leen wax ni moom dey li xale fi bëgg rek moom de lu mun nañu moom la bëgg mbaa lu mun nañu moom la bëggul ci loolu lañu fas yéene ne tuubal ko te déglu ndigalam te dégg it li nga xam ne mooy ay tareem ñu moytu ko la nga xam ne mooy ay ndigalam di bëgg bëggam ñu soobu ca maa ngi leen maa maa ngi nuyu ñëpp di santaat bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi te